nga xam ne am na combat lu leer laa lay wax la même kii bi yaakaar ne combat bi de moom da yomb barki maam ngi nax boppam da ko wax ku ne yaa ngi nax yaa ngi nax nga dem liggéey. te am yëpp ci àdduna kii moo ci gën a ñàkk sens. foo teg loolu kii respecté kii du respecté wu ma ko. respecté wu respecté wu ma ko jéemu ma ko respecté. kii ku ma conseil ci moom sax li may conseil du ma ko def. ma jaar ni ma jaar ne ñu daje fii man ak moom ci naaw. li mu liggéey doyul. man sax lu ma liggéey doyul. sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko attaqué koñe gagné incha allah mënoo ci dara. ci xaaral lay wax man. dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre siflee ma dàq ju ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko incha allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole. diggante Fass ak yi wala Fass ak Lamsar yépp benn la rek Coly numéro 2 ak jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek dañ leen di toppal combat rëg-rëg ak Sa Thiès ndax combat bi jeexagul ndax recours ya nga xamante ni roboog recours ba nga xamante ni am na ci ak yenn réaction yi nga xamante ni nit ñi ñoo ngi koy def Moustapha Gueye tey moom lañ seet fii këram war a waxtaan ak moom ci combat ba ndax ku ne dégg na na nga xamante ni moom la ci waxee woon ci plateau bi avant le combat ba ci guddi gi nga xamante ne moom la ci noonu la ci waxee am ñu génn ñu bari ñoo xamante ni d'accord uñ ak moom ci li nga xamante ne noonu la waxee moo tax ñëw fas yéene waxtaan ak moom rek moom ba ban gis-gis la am ci loolu ndax la mu waxoon mu ngi ci ba léegi wala jóge na ci père dama lay nuyu mbokk internet yëpp ñu def ko comme niñ ko tàmm di defee. waaw euh, auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim euh, yi sax woo di seetaan seen kenn ku nekk ci yéen tamit. ñu koy wax jàpp loxo di ko waxaat encore baat bu sell bi di wax ñëpp salaamaaleykum. alors père comme ni ma la ko waxee dañuy ñëw directement ci combat bi euh, avant le combat da nga joxe woon sa favori que ni Reug Reug moom mooy favori keroog ñoom ñaar bi ñu sumee ko ci biir géew bi avant ñuy bëree cinq minutes wala trois minutes avant ñuy bëre nga confirmer waat ko nga ne état de forme yi du benn lu waaye euh, ragal a wax ragal a wax xam ne Reug Reug moo gën a euh, pare. bi ngay wax loolu noonu fan nga ko tegoon. fu ko tegoon mooy rek la forme physique de l'athlète en fait euh, laata combat. dañu war di càmbar mbër yi ku ëpp doole ku gën a gaaw ku gën a agressif kan bopp condition physique mais yooyu doo ko mën a xam mukk te àggoo ci làmb gis mm. gars yi sumeeku. Mm. da ngay naat naa table rek parce que gisuma ah. Sa Thiès ah gisuma Reug Reug mm. mais dañu dañu am aussi droit ku ne ñu xool sa carrière. ñaata nga bëree ñaata nga daan. nooy entraîner lan mooy sa compétitivité. Hmm. maanaam yow sa sa sa bëree ñaata combat la. bi ñu xaatimee lépp nag ñu xam ne Reug Reug moo ëppale Sa Thiès lépp ci lu jëm ci compétition. Hmm. parce que Reug Reug chance am wax nañ ko waxaat ko. waaw mbapat na. ba moom mbapat yi jëkkër ci mbapat yi dugg ci arène bi def ci ay preuve am boole ko benn discipline boo xam ne ñu wax MMA. boo xam ne koy entraîner moo gën ko ko entraîner donc li li të li dajaloo woon pour ñu jox euh, rëg-rëg favori mmh. dafa dafa leer bëtu nit ñi mmh. moo tax ñu ne quatre-vingt-dix pour cent mmh. téeméer nit yoo jël fukki yi doo nga ñoo naan rëg-rëg euh, sa Sathiès mooy daan bala am na sens ñeneen ñëpp seen xalaat ak seen xel moo nekkoon ne combat bi komba benn waas la mais ci biir loolu nag ñun ñi nga xamante ne bëri nañu xam luy xam-xam xam luy technique mën nañu gis ne gaawaay ak xadar waaw ak sañ-sañ mën na daaneel sax bâtiment moo tax ñu xalaatoon ne Sa Thiès am na ay chance am. si même bu chance bu chance mi gënee tuuti parce que ñaari mbër bu ñu jëbëri ñëpp du ñu yem. Ah cinquante cinquante lu jafe la. Mhm. gars yi dañu koy wax di masla mais ñu jëloon nañu responsabilité ne quand même lu mu néew néew néew néew Reug mooy favori làmb ji. Mhm. léegi nag li tax mu neex mooy li Sa Thiès ñëw daal di fausser calcul yëpp. Mhm. moo tax tey jii combat bi moment bi lay doog a neex. donc loolu lañ gisoon ci làmb ji ba ñu summee ci làmb ji tamit. ñu xool mu mel ni dem naa sa ba ñi. du ñu ay nattangoo ci dayoo. Mm-hmm. benn cent quarante kilos bu doon bëri la peut-être ak benn cent cinq cent dix kilo mm-hmm. donc am na différence boo xam ne ñëpp gisoon nañu ko ci làmb ji. Mm-hmm. donc Sa Thiès lan la war a def pour daan ko def na ko. mooy ñëw sànni sànni kartam son va tout. ko à froid. bilimbaane ko jaxas ko ba am jël ci moom. Reug Reug tamit ku nekk xam na ne ni mu doon bëree mooy yor ba jàpp Sa Thiès. Ah, ah. fu mu dul rëcc dog ko daan. parce que keroog bu ñu defee plateau bi dama ne la boo boo yoroon Reug Reug lan nga koy bëri loo nga ne dafa war a dox ci kaw. dox moom moo war a dox ci sens contraire nag moo am. waaw parce que nit ki moo tax ñu ne nit ki euh, benn bëri rek mu ngi ci nekk champion du monde. Mm-hmm. benn bëri. Mm-hmm. mu judoka benn prise. Mm-hmm. dañ nekk champion du monde. boxeur benn crochet droit dañ ci nekk champion du benn bëri donc. mu ngi ci nekk champion du monde face na ko yàlla yërëm sol laal la ko ñëpp xamal. sol laal li pompe laal li la daan ñi mu daan ñëpp. Mm-hmm. Double Less xëcc ngeen taf sa dënn kott la la daan ñëpp. Mm-hmm. René Diouf Mohamed Ndiaye dar ñaari tànk mbëkk la daw yoo la daan ñëpp. mànga mm-hmm. doy mbër bu ki nekk rek am nga sa. manin manin boo xamante ne ku ci fekk mën nga koo daan surtout mbër muy attaqué. mbër muy attaqué moom bu ko bu dara. sur dix attaques mën nga am sept victoire. Sa Thiès ku nekk xam na ne. c'est un attaquant. Mm-hmm. moo tax Sa Thiès ñëwee xam naa ne conseillé nañ ko teel dalal mais mënu ko. dëgg la demul xaar naa ku ko conseillé na ko dalal toogal yaa ngi koy xañ ko mbaam. Mm-hmm. ndax chance am sax moo nekk ci moom mu xëy dem ci rëg-rëg. Mm-hmm. dem bëri ji ci kaw rëg-rëg. su xaaree rëg-rëg bëri ci kawam c'est pas possible. rëg da koy def lu ko neex. waaye ndokk moom bu mu demee nag xaarul ci kawam. par occasion ñëw ba pare nag bëri feeñ fa. fa xam nga bëri day gàtt. waaw ba pare xam-xam fa. résistance génn fa. souplesse génn fa rotation génn fa te loolu dafa am ci compa bi. combat booy xool minutes yi su ma tee deux minutes ci la yem. Ah. man ah. dama ñëw sama koor xam ne man xam nga mooy man damay topp yëf yi ah. ma chronométré dama xool sama téléphone gis ci une minute cinquante trois secondes. Mm-hmm. ne bon mooy combat de feu Sa Thiès loolu la am ci combat bi li ci ëpp. Mm-hmm. te situation boobu ngi nekk suñ ko génnoon gënaat ko ba rek rek féex. waaw comprendre combat bi bokk ci combat bi. Mm-hmm. kon Sa Thiès du am chance bi mais rek rek jotul bokk ci combat bi. Mm-hmm. ba ni muy daane Sa Thiès sax bi. Mm-hmm. bokkul ci combat bi. parce que Sa mu mi ngi koy. Sa Thiès mi ngi koy harcelé. waaw Sa Thiès lu mu bëggoon Sa Thiès mi ngi harcelé rek rek dafa bëggoon xeex mu ko. wuy ci xeex boobu ci la mën a prox ndollu rek rek waroon a bàyyi ngelaw loolu jàll. ma ngay reculer mais mën na bañ a reculer mën na taxaw nekk ci garde garde garde Reug Reug yooyu nekkul pénétrer corps bañ ndax xam na ni ñuy téye garde mais bëri nag dafa bokkul ak boxe. soo mm-hmm. léegi nag bëgg na xam na ne Sa da koy song. waaw Sa Thiès bi ngi ci xeex. donc Sa Thiès contact la bëgg si Reug Reug li ma doon def mooy fexe ngelaw boobu jàll beneen ngelaw ñëw comme beneen ngelaw bi mu ñëwaatee. Mm-hmm. beneen ngelaw bi mu ñëwaatee def ci am li mu bëgg. donc rëg ku ne xam ne ne jàppante saa si la waroon def mm. indi épreuve de force téye ngemb gérer combat pour mu am chance victoire am mm. waaye bu ñu agsee ci patax patax mm. ku nekk xam ne ne euh, saa si sax rëbbal bël la dafa rabe ci bëre waaye li muy rabe rabe rabe rabe su jëkkaree sax fa la gën a dangereux donc échanger lañu ku ne indi sax xam bëre et yàlla dogal nag am chute bu am su ko mbaam et puis Lamine gars yu bari dinañ juum parce que man trois appui laa gis ba ñu toog ci plateau bi man boo seetloo ci porté ma naan ah non Sa Thiès teel na bàyyi affaire trois appui hmm. mais parce que boobu maa ngi toog sa tribune bi di xool ah, boobu xooloo ci écran bi. boobu xooloo ko ci écran mais bi ñu toogee ci kaw kii bi nag gis écran bi wan ñu ko. Hmm. dafa dafa confirmer loolu nag du man du man du yow du waa kër Reug Reug du waa kër Sa Thiès liñ naan xam xarañ euh, xarañ teefu télévision. Hmm. mbaa caméra wu àdduna ngi dimbali léegi. mbéy ga Double Less du ñu wax. vidéo ba la ñuy xaar ba léegi ñëwul. ñaata combat fi jaar rek am laabaal yi nii. te mujj ñu ko sottil mukk parce que amuñu woon outil yi ñu am tey jii léegi ci biir làmb ja ngay toog mu tas nga xool écran géant bi xam ne am lépp. donc nga gis ne écran géant bi mu ne chute bi man ci laa doog a jël responsabilité ne ah lii de wax dëgg yàlla lu ne fan kenn du ko kenn du ko jeex. ah dëgg-dëgg de def na quatre appels yu leer nañ. Mm. loolu kay lu noonu la ko képp kuy doomu aadama fu nekkoon gis ko. Hmm. le monde entier itam gis nañ ko. Hmm. c'est-à-dire on parle de quatre appuis. c'est vrai que ne quatre appuis lu xaw a soof la ci làmb ndax làmb démb làmb démb wul bi gàng la woon. Hmm. mais jamono day évoluer di évoluer ba ñëw ci quatre appuis pourquoi ñu def quatre appuis parce que gis nañ boo waree ni ki nomba mu def quatre appuis nga ne ci ginnaaw gisoo ko mu lay mu lay dóor. protéger mbër yi la ñu bañ a gaañu am ay séquelles. moo tax ñu validé léegi quatre appels trois appels la ñu jëkk wax mooy jël la. Mm-hmm. ñu ñu xeex ko trois appels dafa gàtt. c' est bien ñu def ko quatre moom fa la yem waaw quatre am na quatre appels yu soof nga mépp mbër dellu ginnaaw mu la groupe. comme nees Youssou Ndour. loolu loolu dafa soof wax dëgg yàlla nees Youssou Ndour. Ah. dafa soof. Mm-hmm. la jàpp jàppoo ko da jàpp la mu nëpp mais ba tey daan la. Mm-hmm. mais bii quatre appels nag vraiment dafa am quatre appels après bi nekk ci kawam. tiim ko yéeg ko sëxal ko téye ñaari gaño yi. mu nekk arrêt sur image donc yaa xayti mu ak ku mun doon même bu doon sa doom boo jur la bu doon sa doom boo xam ne dañ ne boo nee daan nañ ko ñu rendi la neel daan nañ ko te ñu rendi la mm-hmm. ndax làmb moom la ci kenn nax mm-hmm. chaque dimanche ñu fàtte di combat bi amoon daaw ana combat yi fi jaaroon ci ko bii dong la ñuy wax bu dimanche combat amee combat amaat kenn daan moroom mu ñu fàtte bu Sa Thiès Reug Reug mais ñoom nee nañ façon bi nga ko defee nee na euh, ku mel ne manager luñ la mm. tey nga toog télé bi Mm. wala ci seen office nga ne mm. quatre appui nga gis mais dañ leen nga ñëw seen ci mekaay ne leen dem leen fële ngeen ne daan nañ ñu dé waaw attends loolu la boo ko gisee maa ngi nuyuwaale Pala Diop mm-hmm. Pala Diop sama promotionnaire la mm-hmm. ñoo mbappatandoo ñoo bëriloo mm-hmm. mu jaar wàllam ma jaar sama wàll ba tey teewul donc ay nit ay doomu aadama di bokk plateau di bokk plateau. di bokk sa benn association boo xamante ne dañ ko bokk. association des sages maay seen président moom ci membre yi la bokk na miinante xam ba ma ko xam. Hmm. moo tax ma wax ak moom loolu. Hmm. bu doon papa yi boobu taxaw rek ak man du wax ak moom ndax sequñu ko xaw ma ko. Hmm. bu doon benn cimukaay bu ma xamul it du ma wax ak ñoom ndax mosuma ko def moom laa gis xam ni mu mel ci lii rek xam aussi façon ni mu bindee làmb moom paa la ma xam ne nitu dëgg la nitu fayda la ci làmb may dem ma rëgg laa rëgg laa njëkk dajal muy dem ci plateau bi. loolu moo ma jox intention ma avancé di ñibbi. yem ci seen ci moom paal ñu taxaw ak moom tojante moom ne ko ah sa waay Reug mi ne doon ci plateau bi nee leen ko mu déclaré solennellement néew Sa Thiès daan na ma sama naattoonga la war naa ko mun daan daan ma loolu du koy grand ko koy yëkkati du ko wàcce am na fi bataay ci laa nekk ci wàllu histoire Mbaye Guèye Robert Diouf bu ko Mbaye Guèye daanee gars yi def joxe ñu Mbaye Guèye victoire ba ñëwee di bàkko ji Robert Diouf dafa dem di jël micro bi rajo Abdoulaye Samb téye ko ci suba mu dem déclaré ko dans le journal Le Soleil daan na la waaye Robert Diouf ñoom ñaar fu ñu bokk jubilé di di jooy loolu mooy àddina sport la ak ree comme ni ko yaayu rek rek waxee. Hmm. ak ni ko yaayu Sa Thiès parce que ñoom seeni doom lañu. foo la ak ku daanu bu ma déggee ku daanu ruus déedéet doo ruus dangaa daanu rek. Hmm. du suba hmm. ay na su mbappati bañ ne ko bokkatoo ñu ngi ci année bi wane ay preuve tey jii bu yàlla dogalee mosul dégg mu ñëw waaye léegi dañ wax mu ñëw parce que dégg na ko point boo dee wax nag indi xuloo indi loolu baxul ci ay mag li ma wax amul kenn ku koy weddi te du man dong maa ko wax àddinaa ko wax attaqué nit yomb na trop xam nga tamit euh, fils hmm. euh, làqu ci ginnaaw caméra ñu dëppale ko ni ñu ma ko dëppee nii hmm. lu ma neex mën naa ko wax tey bu subaa nga teg ko est-ce que daf ma yëkkati dañ wax lii dëgg rek ndax ñun pourquoi ñuy wax ci làmb làmb suñu passion la. man Sénégal wallahi azim amul doomu aadama buy noyyi gën maa bëgg làmb. ndax ba léegi mel na ca. mun naa ci bañ a nekkati. bay naa fi ay moroom. bari fa ay ñu rakk yu sama ginnaaw. am ay succès. ba ñu bàyyee làmb kenn déggu leen kenn gisatu leen. man maa ngi ci ba léegi di jàngale. te li may jàngale neexul sax sama écrit. mais li may jàngale li ma moom man li ma am. moom moo ko Sénégal ko moom dama leen koy séddale li may def nii ay jëli bi nii mbir mi mën na ci jàngale. saa sees euh, du du du Reug Reug su ko bëtt ci pokotaan saa bañ bañ bëtt pokotaan ba su bëtt pokotaan boobu amoon saa sees Reug da koy daan Elton ak saa sees ak combat Elton Reug Reug ah. combat même design la hmm. Reug dafa wàcc bi su bëtt ci pokotaan buddi hmm. ko ba taxaw alors lu tax def ko contre saa sees saa sees daf ko contrer hmm. bàyyi na ci xel kon kon boobu waxtaan la làmb noonu la léegi suba Reug Reug buy bëttati nit gis na loxo ba loxo fu mu nekk moo fa nekk dina génnaat waajalaat ko. Mm-hmm. mën na ko xam nga lu mu mën la def. Mm-hmm. lu mu mën la def. Mm-hmm. waaye dafa fekk ñu pakk ko. mu war naa génn ca pakk ba indiwaat leneen xam-xam bëgg rek. Sa Thiès bi jàngale. bis bu ne ma ne attention. percer sur mooy li gën a garaaw ci mbër moo gën a dangereux ci def ko mbër. mosuñu ko def ci àdduna mosuñu ko nangu. bëgguma ñu def ko keneen parce que day indi jeexitalu daan. maintenant bu amee ah même sa mbër bu fekkee dañ ko jox victoire c'est bon jox nañ ko victoire parce que Sathiès dafa utiliser règlement amul droit sàqi bu sàqi woon xam nga la ma ko ci fekk. waaw dina am bu gàtt lu mu néewloo trois ans. Mm. reliquat am du ko jot. Mm. te dañ ko jox défaite. comme Tyson Bombardier. voilà c'est trop long Tyson Bombardier c'était trop cher. Mm. yaakaar naa 15 millions la woon 15 millions c'est trop. yooyu la mu ñëw ñëwaat. Reug Reug daan ko ñibbi ok si saa si ak bu jox ko victoire mais du tere ñuy analyser ñi reporter wax lañu ñu gis. Hmm. te def ma lenn nag lu wax la ma gis. façon bu ma ko waxee nag mooy sama mooy sama tempérament mooy sama façon waxee ma ko comme Bécaye Mbaye waxee ma ko comme reporter bi naan laa laa laa ay yàlla nañu xaar lii seen yooyu déedéet dama ko wax ala mbër mu nekk réalité bu ëllëgee kenn duma jam ñoom nag dañu defal attention. combat bu su fi am ba ci combat sànq lañ daanante bu amee mu gis ki ñu ñàkkuloo te ñàkkul dama ci yëkkati kàddu te dama ci yëkkatee kàddu kenn du ma yay dama am possibilité dem ci làmb ji fekkee làmb ji seetaan làmb ji am possibilité toog ci studio bi le réalisateur teg film bi ma koy xool mu koy dagg ma koy xool ba bu leer ci man. ma doog tax di ko commenté. ba kenn du ma jam comba bu mel nii réyaay bi mu rëy ñaari xale yi daaw yi ñu am ak yaakaar bi Sénégal am ci ñoom. nga war ci àtte kenn ñàkkal xalaatuma ko man man damaa bañ injustice ci làmb mm. injustice mu naa ko bëgg ci mbedd sama yoon nekk ci mbedd meeg àll beeg waxante politicien mais injustice bi ma gën a bañ mooy mbër mi daan ñu xañ ko ndamam mm. yaakaar naa ne fu mu mës a amee mm. yëkkati naa ci sama kàddu bu dee am naa possibilité yore amee image damay toog defar ko ba mu leer ma càmbar ko décortiquer ko ñëpp xam ko te yaa naa ne ñi mu ñoom mujj naa leer stade ba ñu nekkoon leer na ci ñoom ndax gis nañ image yi man tam ba demee léegi du tigre gën naa ko leeral parce que dama ne ana yan élément la ñu am man bëgguma lu lëndëm lu leer laa bëgg. Mhm. ndax ba ma fay jógee sama bopp trois appui fa nekkoon waaye écran géant bi moo ma may dama du quatre am na. Mhm. ñëwee sax deux estives bi fa lay fa mhm. ne ma deux caméras tey am ngeen angle yëpp ñu ne ma ñaari caméra ñoo dem am nañ angle gauche am nañ angle droite. ma teg ñaari caméra yi te war naa ko gaay yi mu leer donc amul jataay. amul trois appuis yu ma gisoon amul Samba amul Demba Reug Reug a perdu devant. Sa Thiès Sa Thiès ci ñaari loxo ak ñaar amu ci benn rëccu mënuma du ma dellu ginnaaw ci loolu ak sortie yi ñu def que ni yow da am relation Aziz Ndiaye ah moo tax nga faral leen buñ parfois mën nañu jàppandeeg sa poulain sax. koy wax ñoom ñoo ko xamal moon mm-hmm. relation Aziz Ndiaye. bàyyi Aziz Ndiaye suñu bàyyi baax boobu. waaw alaaji Ala Ndiaye. mu mës di ma supporté di sonn ci man. di jël alal di ma jox. di ma hmm. ñaanlul. Hmm. dem ba màkk di ma ñaanal. Aziz Ndiaye parental la. Hmm. dama ko daan tànk bii bu ma ñëwee seen ñu ngi foto. yaa ngi fii soo bëggee ma génne ko ñoom njaaga seen famille. seen papa bëgg bu ma bëggoon. relation boobu nag moo continué ba dëgg ndax làmb da koy changé. war ko Balla Gaye bu bëree Gris Bordeaux seen premier combat bu métti ba waaye neuf heures du matin Aziz Ndiaye mhm. dañ taxaw ci buñ saal bu bu commencé ba léegi ngaangu moo dama ne eh joxoñ leen ngi seen yoon loolu boobu temps ñu ci xolu mer mhm. ndax wax yi fa amoon détails fa amoon waaye suñu ginnaaw nekk tey nekkatu fi di passé na làmb moo mel noonu bu amee coow lay am ku nekk di wax waaye nag amal matu rek ba ñu génn kàddu goo xam ne bu subaa boo amee suñuy at mbaa at yi ko ëpp bu ñu ko tegalee fu ñu la ko tegal du du am gàcce loolu rek la. Mhm. wax dégg moom nag ñu wax wax bu ñaaw ah wax nañ ma nag ne naafiq la waaye naafiq du fekk ay nit yu taxaw ci cumukaay mu ñëw wax ak ñoom. Mhm. soo doon naafiq ci ci rukkul la koy ma man dama ne maa ba ca ñoom ñu wax leen ko du ma ko wax keneen ah. te ki mhm. tax ma def ko mooy paa la sama promotionnaire boobu. point mën na mer xolam mun na tàng ndax combat ci saa si soo àttee rek. ñu gise ko neneen waaye li def def dëgg yàlla ñoom nañu xool seen akulaay taala seen diggante seen bàmmeel ndax Reug Reug na quatre appuis wala deful quatre ndax Sa Thiès Sa Thiès ñoo ko xamal seen bopp. te làmb ju mu ti doon ak mbër yi ko ti séq lu mel ni su répété woo da nga jël say responsabilité billahi tant que man ki naam billahi wallahi wa taalaahi barki Njaay am na benn mbër bëri bi dëkk Cambérène nu mu tudd bis mi ndooy bébé bis mi bébé bis mi ak Siteu këm loon bëreel Siteu bu ngor Siteu bu ngor arbitre suñu collègue arbitre mi ngi toog. waaw ma taxaw défendre ne ne Siteu daan na waa ji. Hmm. action bi ci biir commencé mu xaatal bi ko ci biti. et tant d'autres bari na fi. Euh, mosul la dal ci combat Bruce Lee Bazoka. Bruce Lee hmm. hmm. man dama ma affaire à la télévision. boobu j'étais en France. dama leen di woo CNG. léegi man sama idée laay joxe. Bazoka daan na daan na euh, daan na. Bruce Lee daan na Bruce Lee boobu télévision nii. waaye dafa leer nañ Bazoka daf ko daanoon. après dafa ñëwaat daan Bazooka comme nii amul changement Bazooka def ko daan at bi indiwaat leen Brise daan ko. Hmm. dama joxe sama sama abi te mën na fa jafe fekk. Hmm. ndagam nag kenn sama kër. di doon sama suq. Hmm. bu ko amee dama koy wax bu doon sama doom bu ma jurit dama koy wax man làmb diggante daan ak daanu du ma si àtte kenn ñàkkal du ma ci faral di ko gis lu ne fang kenn du ko jeex moom laay def def ma leen. sax ci ma jël de for mu lu amul. léegi dama bëgg dugg ci côté arbitrage bi. Mhm. waaw arbitrage bi arbitre bi tamit dafa doon nit comme yow doon comme nit comme man. Mhm. surtout que encore man dama koy euh, masawu. moom Mathia. moom Mathia c'est la première fois man ci li ma xam ci làmb. Mhm. bi mu commencé arbitre bi léegi lii dog ko dal. dana dal keneen moom it dana ko dalaat. ndax àtte yombul. te mbër boo indi àtte ay trois am quatre appui am am na position booy féetee doo gis doo gis benn bi. say juge ñoo la mën a waaye moom amoon na ay juge amoon na trop amoon na ay ñu koy ñu koy encadré. Ah, amoon na ñaar ñaari juge yooyu. ñoom ñoo tam nelaw nañu. donc moom la plus les deux juges. Mm-hmm. parce que mënoo am trois arbitres ci benn enceinte boo xam ne périmètre bi vingt cinq la ou trente diamètre jël di la mm-hmm. defe na xam nga boo gisee yenn saa jël de am arbitre sax du ko gis. Mm-hmm. Euh, arbitre dawandoo suñu dawandoo dugg ci biir dafay siffler. parce que dañuy siffler mooy commencé combat moo mm. koy jeexal. Mm. mais tant que benn juge dugg na rek ak ak même bu xamul lu xew dafay interrompre combat bi juge wax ak ñoom bu ñu déggoo mu joxe victoire. bu ñu mm. déggoo mu sifflawaat mais bi intervention juge jot ci am. Mm-hmm. moo taxit waaye nag moo combat Bruce Lee. ak Bazooka amul la ndif ak yeneen fi jaar. su may su may tàllal dina gudd de. Mm-hmm. booy ñëw bu mu bëree que. Euh, déedéet. Euh, Lac de Guiers waaw dama ci jël plan wax. parce que dañ ma woo ma yow mba mbaa doone la dëgër moo daan mardi te man loolu bëgguma ko ma def mm-hmm. man kenn du ma diriger ci li def am naa sama conscience te xam naa doomu aadama laa mën naa juum nag mais làmb làmb du ma si juum kenn mënu ma si juum loo ci gis rek wax ak franchité ak dëgg ñaata yoon lañ ma daan mm-hmm. ñaata yoon lañ teg sama bët ñaata yoon dem sama sama boo ko xamee boo ñamee loolu ak ñaata yoon laa ñam daan ak ñaata yoon laa ñam daanu lan mooy bànneexu daan lan mooy naqaruñu daan la loolu boo ko xamee du atte kenn ñàkkal hmm. waaye nag comme que du atte kenn ñàkkal nag su dëgg amee yëkkatil kàddu yàlla bi nga xamante ne yàlla mooy dëgg nga def ko ci dëgg boo dee dëgg nag ñëpp naan ñu dëgg nga fexeel su dëgg ñëw rek nga wax hmm. man na du ma nitu dëgg naam ndax nitu dëgg xëy na àgguma fa waaye ñu ko doon ñëpp buñ ko gisee dañ xam ne diw daan na loolu suñu ginnaaw nekk plaigote fa hmm. dafa am lu mu bëgg reproché tuuti le CNG de lutte yi mel ni bu mu saan am le président dafa jël responsabilité am ndax événement bi toll na noonu. Hmm. c'était le drapeau du ministre des moom sax war nañu ko interpeller yu bari. y avait des gan làmb ji fes dell mel nu mu gëj a mel ci ambiance man dama toog kontaan ay bàkku am ay fecc am ay dëkkaati am lépp nekk si jàmm. moo tax bi nga naan làmb gi day yàqu mooy leen làmb du mos a yàqu. Hmm. dana bari coow rek ñu kàlla kàlla te loolu mooy neexul nag ci gis-gis. Hmm. mais mooy charme làmb. puusante baag. waaw Reug Reug ba mu demee di dabi ah Sa Sa Thiès mu demee di dabi. booy bi booy bi. Reug hmm. Reug kar boobu mu ko kar loolu wax la. Hmm. daf ko téye est-ce que Sa Thiès dóor na ko. su ko dóoroon nag fa la lamb ji indi problème. Hmm. te sax tax mu indi problème yéen di àtte ci saa si rek. taxal leen ku ne marché ci mukaay ñu waajaat ñoo bëriwaat ndax ku lekk avance te dëppam. donc ñu xam ne combat yu gën a garaaw yi gën ko metti gën ko jaxasoo jaar na fi te te melu nii waaye nag réseaux sociaux mooy xew léegi. ku nekk da ngay toog sa kër ñu la nga naan wax. waaye yow muy wax bu tëddee nelaw di nga xam ne li ngay wax sa diggante yàlla nekkul. Mm-hmm. te ñu rafetal nag parce que tamit am na wax yoo xamante ne taxu ko am njariñ. Mm-hmm. nit bu dee fi nga dajee da ngeen di saafonte mu xam la nga xam ko ngeen di waxtaan ci àddina bu seetaanee taxawee nii làmb am mu jeex làmb dèjà dañu ñaan seetaan la. Mm-hmm. ndax làmb moom yëfu seetaan rek fa am. dañ fay commencé ba dañu fay jeexee. waaye suñu nattu la suñu histoire la ay gàllaaj dafa am. ay bëj la fa am ay bëgg naanaa fa am ay joxante gàllaaje fa am ay saagante fa am ay yoo xamante ne jaaduwul. Hmm. waaye toujours rek su jeexee dafay daal di jeex. Hmm. tey jii kenn waxatu ko. Hmm. rëg-rëg mooy këram ak ay mbokkam Sathiès mu këram ay mbokkam jeex na bu dimanche rek rëg-rëg ak Sathiès bu daje woon ci làmb ji. dañuy bàq saafante souvent nit ñi ñëw rus kon boog ñu comprendre ne rek sport la sport nag mooy muñ buñ la daanee nga accepté si defet soo daanee bëgg si defet foofu laay tënk. ci combat boobu ñu jëm loolu. bëggoon naa expliquer tuuti que ne man j'étais membre du CNG au temps de Alioune Sarr. Hmm. bu ni ma fi quitté woon bu ni ma fa dellusiwaatee nii bi Matar ba ñëwaatee. ñu hmm. changé. Hmm. CNG bi indi Bira Sène. mais làmb ji musaan mel nii. su Alioune Sarr taxawul ci digg géew bi. def décision tout de suite bu guddee day woote réunion këram. woo ñi mu war woo. ñu waxtaane ko ñu déclaré ko ci guddi gi suba teel huit heures moom mooy jël responsabilité journal huit heures expliqué leeral doomu aadama yi doo ko bàyyi mu fanaan ñaari fan ñetti fan parce que moom a may koy yoon dafa mel ni ba léegi papier bi wan Sathiès ne ko am ngandam ndam joxaguñ ko ko Sathiès bi wan bi wan euh, rëg-rëg ne ko ñàkk nga ndam ba léegi guñ ko te fa lañu war a sukkandiku pour xam ne leer na te pourtant amagul de waaye dégg nga ko rajo dégg nga ko télévision dégg nga ko ci réseaux sociaux yi mm. journée bind nañ ko mm. déjà jox nañu Sa Thiès victoire te CNG génneegul donc CNG wala woon xaar loolu. Mhm. dafay autosaisir mooy am fépp. Mhm. mais est-ce que ñu fekk ñu fekkee réunion bi ñu génnee ñu génnee information bi. ba en fait. ak na ñu ko fekkee. senn na. dañuy wax ne génn naag déposé na recours en tout cas li ñu mën jàpp mooy recours déposé nañ ko résultat bi génnagul mais journaux yëpp génn nañ ko. Mhm. région wax nañ ko parce que am na yu senn. même bu ko génnewul ak bu ko ñàkkute génnee. lu am la yow yaay yow mi président CNG yaay xëy huit heures jël ses responsabilités waaye ndax na looy topp article wala point wala virgule loolu mooy yàq àdduna am na yoo xam ne saa si la ñëpp noppalu waaye damay topp sama yoon mooy léegi ban njëriñ la am pour Sa Thiès dem def recours moo tax ma bu doon Sa Thiès du ma def damay bàyyi ak ñu àtte seen conscience ma xool ndax nañ ko àtte wala duñ ko mm-hmm. wala déet je n'ai rien contre bu mun doon ci àddina mën naa faral mbër de ndax dangay faral mbër en tant que reporter. ñii ne am na moom faral ñaari ginaar bu ñu dee bëri sax nga mën a faral kenn kii duma ko fësal. du ma ko wane du ci tëb du ma ci bàkk mais saa boo demee ci làmb fukki combat yi am saa bu ñu far rek soxla am na fu mu sot jëm fa. mais wax même boo ko xamul. wax ju ñaaw yi ñuy wax souvent après après combat. jaru ko. waaw wëññeente ginnaaw. loo seqoon nit ki sax démb nga bugg ko nettaliwaat. ak di waajal yàq deru nit. Hmm. jaru ko amul même bu nit ki boo séqee ak moom loo xamante ne yéen a ko séq lu ndaw loo xamante ne mer nag mer nag mooy noonu doomu aadama men hmm. mer moom boo ko defee ci saa si mën nga toj dëkk bi dëgg la boo fa jógee nag di ko rëccu donc nag waxaat gars yi rek mu dalal seen xel wàcce tension bi ndax suñ dëkk bi dèjà rek coow li mu nekkee ak bruit bi mu nekkee rek doy nañu sëkk barke ñu war ko calmer bu ci làmb ji bokkee tamit day indi problème waaye nag seetaane bu dee ñëw dafay ñëw waaye bu seetaane bu amee nag man ñooy tempéré defar yëf wax tey ji man dégguma benn kàddu bu Reug Reug yëkkati bu ñaaw jëmale ko ci Sa benn kàddu bu ñaaw bu Sa Thiès jëkkati jëm ko ci te te combat ba jeex na ba yi avant ñuy bëree mën nañu waxante mais su jeexee rek dafay daal di jeex comme ni ñu koy waxee man nag amul doomu aadama yu bëree dama ko répété waat lu mel ni xew te am ak sama droit dama am droit wax maa ngi dégg ñu expliqué naan par exemple bu doon El Hadj Mansour Mbaye boobu doon Tafa Ndiaye temps El Hadj Mansour Mbaye kañ le monde a évolué le monde a changé nit ñi dañu anticiper. est-ce que yow ñooy sax yéen a bokk même statut. yow ak euh, El Hadj yow ak El Hadj Mansour bokkuñ non ñoom El Hadj Mansour Mbaye ay reporter la. Mm-hmm. Tafa mm-hmm. nekkul journaliste sax. Mm-hmm. man consultant la ak ku am sama expertise ci làmb. ak un ancien leader man li ñaan la voix avisée. cadre laa boo xam ne bu jógee ku dégg xam ne kii làmb la wax. ku mu dégg mu wax football di nga ne ah kii day nit ñi. boo dee wax boxe da ngaa day toog nit ñi mais làmb su ma ci tee sama kàddu hmm. kenn du ne waruma ci wax su ma dama ci war mun di def di ci war mun dindi lépp jaar yoon hmm. un reporter wala un journaliste wala un ku analyser bis bu ngeen gis ko penalty la wala penalty hmm. bal bi passé na ligne de bii wala passé ko dañu xaar abi bi reporter bi day day évoluer fana eh baa bal bi passé na ah pardon na ko ah gis ngeen ko xool image yi ah non non non wuu carton la loolu mooy devoir am. Mm-hmm. waaye décision finale ba kay ku nekk xam ne CNG lay jógee. Ah. mais laataa CNG nag bu laabaa di amee comme di am nii mais ku nekk da ciy wax est man rek maa ci wax. képp ku téye micro di reporté keroog ñaata chaîne de télévision fa nekkoon. kaat kaat yëpp ku fa toogoon ne nga Sathiès daan daan na rëgg-rëgg ba ci mbedd meeg ménager yi ci géew ba ñee defar saak yaag ci mbedd ma. Mm. ba caaro yi nga ne fa la dëkk. bu ngeen fa demee mooy benn naan ah wax dëgg daan nañu hmm. nañ nañ ko nangu rek mais loolu mënul ñàkk li am dañ koy nangu Sa góor góorgóorluwaat relever défi pour yokkaat carrière am hmm. Reug Reug nag tabarkàlla macha allah doomu ñaale nañ ko ñaanal gudd fan waaye bu ñu ko ñaanal rëy hmm. doon na bëre mën na bëre bëgg na bëre te mi ngi def li bëre war waaye bis bu daanu ñëw kenn mu laatee daanu objectif am nekk roi des arènes la moom moom moom la gën mooy la gën la bëgg a li mu nekk nii bu ko teggee rek ah gudd fan lañu ko ñaan am na taayu mbër fa tabarkalaaw. Mm. am na gabari mbër fa tabarkalaaw am na jëmu mbër mbëre na mën na bëree. Mm-hmm. na xeex. Mm. gars yi mënul xeex mën na xeex. Mm. waaye nag am na lu mu war a yokk. yoon nag nekkul ci nu muy bëree luy carrière am mm-hmm. mais de suñu doxal ba rek lu ko daje. li ma ko mun dolli man ci wax doom par set la bokk naa ko rëg rëg ah man de gis naa nanga man nangam yokkal fii wàññil fii ñun boobu ñeneen lañu am muy rëg rëg ak muy Modou Lo xale bu mës woo téléphone dama papa ah man dama am combat ah ma teg loxo kan ngay bëree mën xaw ma diw de waaye su fekkee yaa ngi di ci gont am condition physique boo demee defal sama nii bul maye mbër du maye waxal waxu mbër bu ma dee yow tam gis na nga ponkal. ma xool ne sa ponkalaay bi Sa Thiès gis dañ dañ au mois de décembre mu toll lu ko neex mu ne ko fis ni nga toll nii du yow yow mburu vitesse nga mburu agressivité nga mburu njaxlaf nga yow mburu deux trois minutes maximum cinq minutes nga mm-hmm. sa yaram dala koy empêché ne ko moo la ko empêché si combat sangam moo la ko empêché si combat sangam donc fexeel wàññi sa poids ba moom su bopp normal. Mm-hmm. doole bu question ki ngay bëreel doole yow la. Mm-hmm. mbëri foog ñu xam loolu sa doole nit ki dana am sa doole bopp. sa doole bopp mu gën a wóolu doole waa ji parce que wu ci doole waa ji. Mm-hmm. doo dem mukk sa ngay wut. da wax liggéey ba mu leer la ne yow mii soo róoñoo cent cinquante kilos yëkkati ko bu la cent cinquante kilos dalee si kaw nga mun a résister loolu mooy doole mais doole nekkul ci jëmm mbaa mu nekk ci taay doole nag rek doyul pour daan bër. doole ak bëre mooy daan bër. Hmm. wala déet. Hmm. donc saa Thiès mën na surprendre ku nekk. soo tuutee gaaw mun ngaa daan ponkol mun a léegi. la wala déet. dëgg la ah li mu waxtaan nag li fi xew nag képp ku mu naqari wax dëgg yàlla. Hmm. ah te nga gisee na yow ni mu waxee war ma ko waxee. maa ngi lay taal la loxo ji maa ngi lay jéggalu. waaye du tey ma tey du tey ba tey ma ne rek ah su amaatee ci la ma nekkoon laay nekkaat. jërëjëf. kon ñu tëj parenthèse boobu. dugg ci ban. tàggatoo rek. xanaa tàggatoo jot na waaw. Euh, waaw li may tàggatoo rek moom mooy vraiment des fois ñuy bëgg regretter lan moo tax suñu nekkoon mbër ndax làmb làmb ni mel léegi dafa mel ni ñoom Fala Ndiaye bi ñu bëree moo gën bu ñoom Mame Gorgui Ndiaye di bëree ñoom Mame Gorgui Ndiaye ñoom Mbaye bi ñu bëree. Mm-hmm. moo gën bu ñoom manqué dina doon bëri ñoom manqué de bi ñuy bëree par génération lay lim de moo gën ña ci toppaat bi ñuy bëree ñun ñun ba ñuy bëree moo gën ñu topp si ñun ainsi de suite ainsi de suite léegi nag ñun bu fekkente ne li ñu doon def dañ ko bëgg mu nekk suñu passion nekkoon suñu métier ñu am ci ay njaboot am ci ay soxna tabax ci ay kër am ci suñu teraanga bopp bi ñu yàlla mën hmm. tant soit peu dañuy bëgg képp ku ñëw suñu ginnaaw rek fuuf ñu hmm. billaahi walaay taala su ma sañoon bépp mbër bu takk làmb li ma denk sama poos mbaa li ma denk sama waxande bala ma nekk sama banque ñu ma mujjee ñoo may ëppale ndax ñu ëppale ma du ma wàññi dara ñu ëppale ma ndam du ma wàññi dara ñu gën ma néew defet du ma wàññi dara ndax ma naa sama carrière moom mu jeex dëgg la ah, di nga dégg itam ñu ne ah waaye kii dafa bëgg xaalis waaye kii dafa cogg déedéet du ma loolu ndax man lu waay yëkkati teg ko sama loxo su ma ko tegee à gauche su ma lambee sama poche fekk naa fa lu mu toll mm-hmm. ak ku mun doon donc nag euh, nam ma lu bari mm-hmm. ah nit nag moom boo amee foo dëkk am daamaar bay war am sa njaboot ñu mun di ndékki di añ di reer nga feebar mun a faju amul leneen loo bëggaat da nga hmm. toppat la ñuy wax extra extra boobu nag mooy dimbal doomu aadama dama hmm. la damaa bokk nag ci ñuy dimbal doomu aadama hmm. billaay walaay taalaay yàlla na ko yàlla saxal amiin yaa rabbi man tamit yàlla su ma amee soxla yàlla naa daje ku ma ko mën dimbalil àdduna pour man dangay am soxla mun ko faj faj ko gis nit am soxla am mënu koo faj nga fajal ko boo hmm. tax waykat bi ne am sa soxla làmb sa poos hmm. fekk ak saa janaa liggéey ba dee hmm. waaye nag soxla yëpp lañ mën a fajandoo te man ma dimbali man man maa mbër bu ne sama écurie ba nekkul sama bu may jiiñ dama ko taxaleeg moom ak bu ñu may nangam nangam amul mbër bu musa yëkkati cent mille francs ron ne Père Tapha ngay am bu amee jël télévision bi te nag mbër bu amoon combat tey jii rëg-rëg ma dëkk caaroy aman combat daan ak bu mun doon hmm. xaw ma ko xaw ma war na mu sax taal otom këram départ romb VDN bi ñëw sama kër hmm. sone hmm. bàyyi Moustapha Gueye laay seet papa ka demal indi loon guro loolu la ñu war a jàngal xale yi moo xam cent mille franc la moo xam dix mille franc la dama koy bégge dama koy kontaane yenn saa dañuy benn mbir bu ndaw ndeysaan ci ci làmb ji mu téye le père làmb posam génne cinq cent may la papa ñaanal ma loolu day day daw sama yaram cinq cent franc boobu téeméer boobu moom gën a bilaay milliard bu ma dem njuuj njaaj ko mbaa ma taxaw kenn mu jox ma ko mm-hmm. donc euh, àddina moo tëdd noonu rek ñun daal lu baax la ñu xam mm-hmm. mosuñu sikkal làmb mosuñu gàkkal làmb làmb lu baax lañ ci xam mm-hmm. te làmb dafa baax kon ba ñu ci nekk dañ gën ko rafetal gën ko jekkal mu gën a baax ñun liñ ci mun mooy defaraat rek bisu tey bii mën naa fi jóge du ma téyeti micro di wax ci làmb du ma demati dafa émission législative du ma sax dem toogati si naan làmb te fu mu amee toog sama télévision bi di ko seetaan waaye sama passion la bu ñu ko doon ci bu ñu ko doon ci man xëy na ñu gàttal sama fan dama ko bëgg ñoom sax xam ne nañu dama ko bëgg. rëgg nag fekk naa ko ma taay ci bëri xam naa dina jëmmi leen dina bi daal moo defu làmb man damay toog fii samedi jël ma taal sama oto dégg làmb pasi ma dem. Mm-hmm. ànduma ak kenn. Mm-hmm. char ga ba mu tas mu wàññeeku ñu bisiwaat. Mm-hmm. bëgg-bëgg la kon boog nañ ko rafetal taaral ko te xam ne wax ju bon amul njëriñ. ju baax mu am njariñ mm. rabbillahi taala anu nee na ah ñii def lu baax war nañoo gën a góor góorgóorlu def lu baax ba ñuy def lu bon war ci lu baax mm-hmm. ndax lu baax rek a jar def mm-hmm. kuy def lu bon nañ dugal ci biir ñuy baax mm-hmm. ndax mu fekkee ñi baax noosoo lu baax def lu baax ndax làmb lu baax ci am ñu gañewuñ ci dara lu dul di ci wax lu baax ak di def lu baax kon boog ñu ngi jéggaluwaat encore ñëpp leen baal wax lii nag boo gisee mu yëkkati kàddu yi ngeen baal ma pour dalal nit ñi ne benn xol bu bon képp ku doon mbër doon waaye rek chaque dimanche mbër daanu te saa bu rek mbër ko daan jàll ci benn dimanche salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu xam ne am na combat lu leer laa lay wax la même kii bi yaakaar ne combat bi moom moom day yomb barki maam Seydou Fall mi ngi nax boppam da ko wax ku ne yaa ngi nax yaa ngi nax. nga dem liggéey. te am yëpp ci àdduna kii moo ci gën a ñàkk sens. foo teg loolu kii respecté kii du respecté wu ma ko. dégg nga ko respecté ko jéem wu ma ku ma conseil ci moom sax li may conseil du ma ko def. ma jaar nii ma jaar ne ñu daje fii man ak moom national. lu mu liggéey doy. man sax lu ma liggéey doy. sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko. attaqué koñe gagné incha allah mënoo ci dara. ci xaaral lay wax la man. dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre sifflé ma dàq ji ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko incha allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole. diggante Fass ak Thiaroye wala Fass ak Lamsar yëpp benn la rek Coly li numéro 2 ak PAM.